jaajëfatee jaajëfatee sama gars yi dëkk bi dafa doon takk jëppeet commencé woon na xaaral ma woon leen image yi. on cherche à les évacuer des lieux. dégg nga dégg nga on cherche à des lieux xool leen fii xool leen fii cité kër góor gi policiers yi xale yi wër leen dégg nga dégg nga

le ah, nu mu tuddati quinze woo na yeneen agents yi dégg ngeen woo na yeneen force yi nañu ñëw commandant bi léegi affaire yi affaire yi léegi mu tàkk waaw bugguñu ku filmer dégg nga waaw fii fan la fii est-ce que du tribunal sax man xaw ma noo fi defena keur ci cité keur gor gui la mais amna ben amna benen bu bu am feulé wala mu ngi don di gérer euh, circulation bi. waaw fi defena keur gor gui la xaar len waaw fii keur gor la xaar ma avance ko tuuti parce que am fu muy sànni grenade waaw grenade yi jot nay tàkk jot naa tàkk dégg Sonko Sonko. voilà des applaudissements. dégg les pro Sonko ñu ngi tàccu. gendarmerie ñu ngi tàccu gendarmerie. les sonko dégg nga di wax gendarme yi ñu no ñu no Sonko Sonko Sonko Sonko demul tribunal demandé wul tribunal ñu xale yi génn commencé di waaw fii si te kër góorgóor yi la fii si kër góorgóor kër góor xaaral ma avancé ko tuuti wuu wuu am na fi mu wëy mi ngi koy xool leen allahu akbar xale yi seen yaram dafa tàng they spoiling for a fight ni ko américain di waxee seen yaram dafa tàng xeex rek la ñu yàkkamti xeex rek la ñu yàkkamti waaw Macky Sall na gëm yàlla lii du sax du sax procès Adji Sarr nit ñi génn Macky Sall day testé dafa teste moo tax ñoo ko tey envoyé wu ñu Sonko convocation dañu bëggoon xool ndax bu ñu wootee xale yi dinañ génn wala ñu génn wala Sonko dina woote wala du Sonko wootewul sax xale yi génn dégg nga fi éparpillé ñu ngi fi ñu ngi fi du ñu dem fenn waaw gëm leen yàlla dina leen won tamit tribunal waaw gëm leen yàlla dina leen won bu tribunal bi tamit dégg nga dégg seen yaram dafa tàng fu mu ne gatsa gatsa dégg nga Macky Sall rek la ñuy xaar waaw Macky Sall la ñuy xaar xole boy booy dañoo bëri sax ñu ngi naan ñëw leen xool leen xool leen seen yaram dafa tàng liggéeyuñu goruñu yàq euh, euh, euh, yàquñu fi mu nekk jëppeet la ñu bëgg dëkk bi tàkk jëppeet la ñu bëgg parce que ñoom amuñu lu ñuy perte révolution am ñu jële fi ñu fi war a jëlee Macky Sall mënul tere Sonko bokk ci ay élection Moustapha Diakhaté bu yóbboo nga nopp tool sa bopp dégg waaw nga jël pare nañu kay te Sonko wootewul man looloo ma ci jaaxal waaw gars yi après dañu dem tribunal xaaral ñu jéem a dem tribunal defe naa defe naa tribunal am na fa tamit ay quelque ay quelque affaire yu fa amoon tribunal suma ma juumul euh, entre les jeunes euh, euh, non non lii lii lii feneen la xaaral ma jéem a dem la une SN ba xam defe naa foofu gis na fa tamit mais li man vidéo bu gatt rek la leen bëgg defal pour wax leen né gis nga euh euh numu tudati ah Sonko ngi nii xool leen ko ndessat xol leen ko mom mi ngi génn dem doxi ci Sonko lol du Sonko na Sonko la moy génn ni dengue soko génn ñu ne dañ ko ne dañ koy jéem a téye dofuñu de ñu de arrêté wuñ ko de soko ngi ni policiers yi wu len waaw waaw la ilaha illallah génn dem entraînement policiers yi xamuñu lu ñuy def mais c'est extraordinaire c'est extraordinaire won len ne man ma mom cité gor gor gi lu ma neex lay def waaw waaw benen baangi ni Sonko genn na gis ngeen ko ak joginam dem entraînement gis ngeen bi gis ngeen bi c'était keur gor gui Sonko wotewul deful dara dekk bi commencé yengutu jeppet kon bu demone tribunal lu muy mel Sonko bu demone tribunal nan lay mel mais c'est extraordinaire li li am Sénégal wa ah, am na fu muy waxee journaliste bi dégg ñu xé dafa ñu dara ñu ngi dem mais am na fu ñuy sànnee Macky Sall xaw ma pool Kagame mi ngi Sénégal xaw ma nekkul Sénégal moo tax mu daw xaw ma Macky Sall mi ngi Sénégal nee nañ la Macky Sall bu nekk Sénégal buggul dara yëngatu waaye jommi na de tey mi ngi génn di wax ci teer beeg ñoo ko moom ak moomuñu ko di weddi wax bi du waxu teer. wax ji mooy xale yi seen yaram dafa tàng Sonko du dem tribunal wax nañ la ko Mame Mbaye génn na naan waaye Sonko dafa war a wuyu léegi waxutul Sonko dina wuyu par force de dafa ne Sonko jot na convocation dafa war a wuyu kon léegi ma gis Seneweb bi ñuy a benn këyit di wax Sonko jot na convocation waaye léegi jot na convocation lu tax ngeen renvoyé dégg nga xoolal policiers yi ni ñu avancé xool leen billaahi wallaahi taalaahi deusième vague bi mooy gën a metti Macky Sall moo la ko gën a xam xale yi seen yaram dafa tàng bind nañ seen testament pare nañu pour joxe seen bakkan troisième mandat du am Macky Sall moo war a gëm yàlla xam ne troisième mandat du am procès Adji Sarr di am procès Mame kenn du ci tere Sonko mu del mu dem nu mu tudd ti bokk ci ay élection xool leen lii Sonko rek ko mën wootewul deful dara dëkk bi commencé tàkk jëppit am na benn image bu ma gisoon Euh, tribunal aussi su ma ko mënoon génne dama koy génne xale yi dem ba tribunal di wax sonko sonko sonko sonko dégg ngeen waaw ah, dafa mel ne grenade yi commencé na tàkk de dafa mel ne grenade gis ngeen xoole policier xool leen yéen a xam de dégg nga dispersé bu léegi léegi léegi dégg nga ñu ngi leen di yuuxu léegi grenade yi tàkk Macky Sall xam naa lii la gis moo tax mu ne eh renvoyé leen yëf yi ba le 15 le 15 bu ñëwee tamit dara du am dara du am billaay wallaay taalaahi ko moo bari doole Macky Sall gëmal yàlla jeexal nga jeexal nga bu la neexee ngeen rey ñu ñun ñëpp ngeen rey ñu junni sénégalais rey leen ko waaye du leen doo leen ci mucc yéen jeexal ngeen li li ngeen war a def mooy ngeen gëm yàlla ngeen ut Amadou Ba wala seen candidat ngeen teg ko. ñu duma leen ngeen nekk ci opposition bi am 3 députés wala 4 députés APR tas ngeen jël seen milliard ñu bal leen lo rek fi dess de waye Sénégal bo lu ko talé ñun ñeppay perte Sonko bu déwé yeen ñepp ngeen di dé fi kenn raxu ñu ray kenn kenn waxul ñu tal kenn yefu kenn Mollah Morgun li limi wax ak pono essence tal ñun ñu lolu ñun li ñuy wax moy door leen rek bo lu dooré ñu fayu mais ñun duñu tal Sénégal sëriñ ñu toog di ëffal c'est trop tard soxna dul dem ay serigne muntaha ay euh, gam Poroxaan ma gis ay Déthié Fall di dem ah di yagar yagar di dem ci serigne muntaha pour lan yeen 5 mois mu leen gis serigne muntaha ñu tëj bunti xalé yaangi ni waaw xalé yaangi ni amuñu lu ñuy ragal waaw Macky Sall gëmal yalla bu la nexe nga dem Guinée Bissau comme ni ko Morla Mora mo gën waxé jël ay nit tek bu la nexe ngeen jël seen vidéo né da ngeen def écran plat xala bala ngay def écran plat day fekk procès am Adji Sarr déggatuñ ko Mamour Diallo déggatuñ ko Gabriel Kane déggatuñ ko ah Françoise Hélène Guèye téye na làmminam mètre trois pomme keroog muy génn di di am lu muy wax ndax euh, euh, Mollah Morgun fen na ay fenam yu tooy xep génn xam ne dafa fen mu ñëw noppi Adamo tëj nañu chaîne am un million cent mille euh, abone patriote yi signalé ko mu perte kon nag ku nanguwul

depuis les États-Unis d'Amérique côte ouest lay doon ah di leen wax ne gatsa gatsa lii nag day gën a jox Sonko doole xam na ne même bu wootewul sax xale yi dañuy génn kon nag la 15 bi jotee bu dee dañoo dëgër bopp Sonko bu gé bu demee tribunal tribunal fees dal lay def te doful leen ba naan koy tere mu bokk ci élection yi bu boobaa Macky Sall comme ni ko Sonko waxee am na nu muy demee du eggali 2024. ndax dëkk bi un yi fa amul avez vidéo vive le président Sonko vive yow vive le Sénégal man nag maître avez annoncé woon nañu ko waxoon nañ ne vous avez convocation ñoom parce que le doon testé pour xool ndax xale yi dinañ génn waaye li ñu bëggoon gis nañ ko Cheikh nañ merci